www.sangatv.com. nañu jël suñu quotidien tàmbalee ko daanaka mook yéene kaay yu bari ñu bokk lu ñu xëyande xalifa Sall mi ñu doon àtte naka démb ca tribunal ba mu mujj aaki moo coow li ndax dem ba maar ci mbir yi Sud Quotidien xëyee ay kàddo mu di àtte leen ma man dong ñeneen ñi ngeen jàpp ngeen bàyyi leen ndax li ngeen leen di toppee defuñu ci dara bàyyi leen ñu dem seen kër moom Sud Quotidien kàddu Khalifa Sall yooyu la xëyee Walf Fadjri moom it daanaka noonu la xëyee xëy ñu xamal ne Khalifa Sall assumé na yëf yi ba noppi di accusé ndax nee na li tax ñu teg ko ci tribunal ba di ko àtte muy teggi ay tuuma ak di teggi tuuma mooy benn marché buñ ko proposé woon ci wàllu politique moom la bañ moo tax mu indi jafe-jafe yëpp mais diñ koy toppe yëpp dara la ci deful lépp politique moo ko lal Les Échos jël kàddu Khalifa Sall yi teg ci xët mu njëkk mu euh, dara loolu la wax président Malick Lamotte bi doon présider audience su bi matin xëy xamal ne lu aju ci caisse d'avance bu mairie bu Ndakaaru coow li nga xamante ne mooy li ko ne offre politique bu ko defoon moom la bañ moom moo tax gars yi bëgg ko euh, fitnaal nii bëgg di ko rëbb bëgg ko sonal ci wàllu politique ngir fexe nu ñu ko sànke ba tey ci xët mu njëkk la quotidien ñoo ngi kaddu yu président Malick Lamotte muy xam ne ne daal mbiri politique indiwuñu fi ay fait précis moo ñu fi indi muy loo xamante ne ji dañ koy lijjanti avance bu mairie bu Ndakaaru li mu gis moom yéenekaay bi di las moo di Xalifa ubbi na caisse d'avance am maanaam wax na kàddoom yu njëkk gannaaw ba ñu ko téye ci kaso bi Soleil national beneen gis-gis la ci am ndax nee moom Xalifa Sall ñi nga xamante ne ji ay témoignage lañu ak ñi ñu jàpp ci mbirum caisse d'avance bi démb témoignage yi ñu def dañu gën a dugal Xalifa Sall ndax kenn ku nekk la nga wax bokk na ci Fatou Traoré mi trésorière bu GIE Tabar ak ak euh, comptable a li gis mooy gaañ ñi dañoo jël faux maanaam lu tegul ci yoon de ci ragg seen der foofee la ñu doon sukkandiku wax ne war nañoo mën teew ci procès Khalifa Sall bi ne ay témoins yéen kaay bi nañu ñoom du ci mujj teew direct info it wàccul yoon wi dafa xëyee layoo Khalifa Sall bi di ko nettali minute par minute audience na mu demee lépp kon mi ngi ci yéen bi l'observateur xëy génn feneen ci xëtamu njëkk Idrissa Seck mi nekk nekk ci diwa réewum Sénégal moom la xëyee Idrissa Seck ak euh, ni mu baaxoo di ŋàññi Macky Sall noonee la dikkee mbirum couverture maladie universelle ba mu demee ba ca Kolda li mu ci gis mooy slogan la rek bàkk la bu ñu teg mais amalul askanu Sénégal njëriñ croissance économique bu Sénégal bi ñuy wax ba ci campagne agricole bi lépp moom Idrissa Seck waxtaane na ko enquête xëy di waxtaan ak Mamadou yi moo fi newoon ni jamono njiital LD moom Mamadou Ndoye gis-gis bi mu gis ci Benno Bokk Yaakaar jëm ci ne mënatuñoo taxaw Macky Sall lépp mu ngi ci journal bi beneen journal mu di record yëngu ci wàllu tàggat yaram euh, na benn kat boo xam ne xamuñu ko bu baax Issa Diop la tudd di football ci Toulouse euh, yéenekaay bi nañu moom papam Sénégal la dëkk yaayam dëkk Maroc waaye fi mu nekk ni Hervé Renard entraîneur bu Maroc mi ngi def ay pexe ngir mu dem football réewu Maroc jot na ko sax woo téléphone ba ñoom ñaar ñu déggante ñu dellu ci xët mu njëkk l'observateur waxtaane fa xew-xewu jamono bi xew fële ci diwaanu Njaareem di benn waay boo xam ne dafa am jabar bàyyi ko fi dem bitim réew euh, rakk ji sëgg ci jabar ji rek ba benn jour yaayam bett leen yéenekaay bi nañu ba ñu ko bettee moom waa ji dafa daw dugg ca teen ba euh, Euh, les échos mu ngi koy ko leeral nee na waa ji suudu mbay la tuddu ba mu duggee ca teen ba deewul waaye ñaari tànk yeeg ñaari loxo yëpp a damm xadi